mune la ko warlu li tax na manifeste bi dafa melni li ñu ko gën bëgg moy mbolem ko xam yëgal na la bis bi yàlla xam na ni wo nga ma téléphone wala nga ma ma ben nga teew wala nga yëk saaji yoné yónnee ma boole koor nak wax bay joy wallahi nasib amna ci ñoo xam ne musuma leen tegg ba ni dañu sekk rek wala teraanga waye musuma leen tegg ba gis seen am ci ñu nekk bitim rew séqal ñu teraanga yónnee ñu ko kenn ku ci nekk ni fu ma maanaam dafa bis maa ko defar kon nag mbokk yi koo leen war a def nam la dafa tax kon sant naa ñëpp bàyyiwuma kenn su ma dee samay kàddu mooy ginaar ma santee waa wilaaya ndax ñoom itam at mu nekk bu ma leen wooyee ci bis ba dañ fiy teew andi seen ren jii délégation bi ñu àndaloon soxna Alimatu Silla Serigne Mbaye Sarr ak soxna Yacine Diop at mu ne ma leen invité ci ñu ñëw ak seen i addiya ñoom waa wilaaya kon dinaa leen ber ak cant ñoom itam dinaa leen jaajëfal fi may tëjee kàddu yi nag mbokk yi leen fi ma jëm man man fi ma jëm dama yoon yi may sakkuma ci ngërëmal ma sàmma sakkuma ci ngërëmal ma demba bëgguma ko ci ngërëmal kenn dong laa ci bëgg muy ngërëmal Seexul Xadiim du kaneen du kaneen du ku yàlla bind ku mën a tee yoon wii ma dox ma dox ci ku yàlla bind laa wax na mënu ko te fii ma jëm ragalu ma fi mbokk yi daa fee ñime te ku ñime dañ laa dëy mbokk yi fi ma jëm ragalu ma fi daa laa dëy te mbokk yi nañu xam ni li fi nekkoon jógu fi ku ko sàkkoo na ko mag ña sàkkoowoon yàlla jox la ko nag joxoon mag ña wallaahi sëñ Sadda li fi nekkoon demul fenn ku ko sàkkoo ne ko mag ña sàkkoon yàlla jox la ko na ma ko joxoon mag ña na ko Cheikh Mamadou Bassir daal sàkkoo ko sàkkoo amee noonu kan moo ko doon joxe yàlla daa dem yàlla daa faat ah yàlla daa faat faatuwul yàllaa ngi fi démb moo fi ne tey ku sàkkoo mbir mi na ko mag ngi doon sàkkoo yàlla jox la doon joxoon mag nga waaye nag mënoo reer ba regg tëdd sab lal tëj sa sànke danaa yaara bi du am reer ba regg allah na yoyɗa witte qissa sanke ya rabbi ɗum nanmo allahu akbar wallahi nasim laɗo sunu borom joxane ñoo xam ne lu ñu dogute jëm ci tiir tànk dara mënu koo dindi dara alors pas pas na de mbokk yi pas pas na mais nit ku ne nu mu ñëwee ci yow rek doxeel ci moom noonu ki gëm ni yàlla mën na lépp war ko ni yàlla mën na lépp ki gëmul loolu bàyyi ko boppam bàyyi ko boppam kon mbokk yi nañu jaar fi mag ñu jaaroon suñu bëgg am li mag ñu amoon bu koy def di am ngërëmal yàlla te bu ñu day mel ni bu daal ci mars Cheikh Moustapha mars bu daal ci dëkk xam nga ko tàng lay def bu ne sëñ sooy boo mu jaar ci turu da nga ndax mbokk yi turu buntu bi ku bëgg di nga song turu yàlla te bañ cee caaxaan bañ cee tappale loo ñaan suñu borom ko yàllaa ngi fi demul fenn ña ko doon sàkku rek ko fi nekkut toppale yi daa bari léegi woor yu bari wuruj yu bari ñu koy woor te duñu ko bari am na ñoo xam dañ naa sëñ Tuubaa nee na ma sëñ Tuubaa nee na ma billaahi am na waaw yow wax a yow ne ma da nga koo gisati ñu bari fii te billaahi am na man mën naa laa tuddal ay nit ñoo xam dañ naa sëñ Tuubaa ma te am na loo xam ne kenn du ko wax nag dama leen nag ñàkk sens paasewul yow bi ngay dund jamonante wax seexul xadim kon gisoo ko yàlla xii yàlla mayu la tawfiix ba nga gént ko ba gis ko ciy nelaw amoo tawfiix a gis ko fële ëllëg ñàkk sens ba gënt rëy loolu te am na ñoo xam ne noonu la nar a demee de yàlla ci yàlla musal jamonante woo ak moom ndax gisoo ko yàlla mayu la tawfiix nga mës a gis ko te jëfoo jëf joo xam ne ëllëg na tax nga gis ko fële te billaahi am na yoo xam sëñ Tuubaa nee ma lañ lay wax sëñ na ma mbokk yi nañu nekk ca yoon na nañu nekk ci yoon wi loolu rek ñu may ngërëmal tey ak ngërëmal ëllëg bis bii nag la ma daan wax laay wax taataan leen bagaan yi taataan leen bagaan yi te ñaan aajo yi fajub aajo la ngir bëgg lu leen neex waxuñu ko ngir bëgg ngeen di ñëw dañu koy wax ngir lu fi waay bëgg amoon pas-pas bi rek da ni lii bëgg bu déwénee ngir jëm yàlla damay faral di wax ne ku ci dugal saw ñaq wala nga teew ci bis bi nga jàpp ci bis ba bis bi jàpp ba bis bi jàpp ak koo mën a nga ca fas la faj aajo la ndax saa yu ma ndigal damay dem ba ci kanamu sayxul ni ko salaamu aleyka yaa xadiim rasulillah wax ko li ma bëgg lépp bis mel ni daal fa bàyyi ko maa ngi waxtaan mooy ne mbokku démb doon ma ne ko ba xam ne barab Sëriñ Tuubaa ma fi ñëwee ren daara ko mën naa fii ñëwaat doon mu ni ngari ma ne ko dama ko dul fontoo moo tax ma ko ne asalaamaaleykum di nga xam ne lu rëy ma nitu yàlla nag ku ko xam dëgg du foo toll di parak paraj ci moom yàlla ku ko xam ci moom waaw xaw ma nag koo xamut nitu yàlla laa ku ko xam laa doo pare pare ji fële ci moom da ngay bàyyi ba loolu ñor loo dikk nga dem wax ko na ko bëggee mu defal la ko na nga ko bëggee ndax ñoom bu nu faatoo ñu wax wàccub liggéey ci leen gën a jigéen seen borom gaa yàlla yooyu bu nu wàccub liggéey ci leen gën a jigéen seen borom te bis bi dama cee di Serigne Touba li ma bëgg mel lépp te mu nekk lu ma ko ca wax ni ko lii daa bëgg mel ne bu ñëwee day mel noona daaw bi ñuy togg fii aññi ma ngi taw. ñu naa ma suulal galaas ak suulal xorom ak lu ne ñu dama ko ma leen di bàyyi lim wax sama borom doy na ma bu tawee moo gën ci bi bu tawul moo gën bu ñu dul bu ñu nootu takkusaan ñu fi nekk na bu ca guddi ko mu doog a sawaat mbokk yi suñu borom nañu ko bàyyee ak suñu bopp te dëgg Seexul Xadiim sëñ Tuubaa bis bu ñu dëggalee ci moom waxuma ñi ne murit bu bees ko de kenn ku ne naa murit laa fëlañ fëlañ yooyu waxuma ko de muritu dëggal laa wax dund sëñ Tuubaa te bañ koo te bañ koo tuddoo rek dund ko dund sëñ Tuubaa bala ngaa xam mooy kat na koy dund ko mooy lan mooy li mu nekkoon nga nekk ca di noom nabi ci fi mu nekkoon fi man nekkoon nit nan lay war a tëdd xalaate nelaw guddi ba mu jeex nit nan la war a xalaate loolu nit war na xalaat ne man damay tëdd nelaw guddi ba mu jeex nit nar lay war a xalaate ay yoo tax nangootoo jaamu sa borom ni bu ma dëkkul sànq dama jaamu yàlla na la yooyu matt ñoo xam ay jaam lañu yàlla digal yow jaamu bu yàlla digal ay jaam lañu jaamu bu yàlla nekk ci la yàlla digal rek sëñ Saliou da dañ koo mos a monteel ci ab yooyu mu am ñetti fan yoo xam ne gisul yooyu moom sëñ Saliou mu laajte ni waaw man ñi daan ñëw fii dama leen a gisatul ñu ne ko lamp yi ngay gisee dañ daa yëru ci ma gi ngay màtt moo tax mu muudu yi nekk bitim réew ñoo ko jënd pour développer ko pour moom day capter yooyu di leen rey mu leen ni na deñ na deñ na deñ bàyyi liin a sama yooyu rey di lakk yàlla dong ko jago rey di lakk yàlla dong ko jago bàyyi liin maag sama yooyu mais nit yàlla foofu lay nekk mbokk yi kon foofu laay téye samay kàddu di leen xam ne man daal fi ma jëm na ko ñëpp xam nëbb tuuma làq tuuma fi ma jëm xam naa ko régalu ma ci tey li ma woo te wóor ma lépp loo xam ni mag ñaa ngi ko seexlu maa def loola lu mag ñi nekk rek seexlu maa loo loola kon di jaajëfal ñëpp di baalu àq ñëpp di jaajëfal nag pri euh, euh, directeur rajo Baol Média moom itam sëñ Mouhamadou Diop Thiat moo ne ci technique ba tey ndax sëñ Fall ma fa nekkoon dafa génn mu téye na ko sëñ Moussa Thiam ne fii di ko en direct kon moom itam kenn mënu koo fay sëñ mu jot taal ñu lay nuyu di nuyu nag personnel bi nekk foofu ci Baol Médias gépp bàyyiwuñu kenn ku ci nekk rek ak foo mën di jóge ñu ngi lay siyaar soxna yaay faa rek ne ci ñooñ la ànd ñoom ñëpp ñu ngi leen jaajëfal bàyyiwuñu kenn di jaajëfal nag euh, euh, monsieur monsieur monsieur Diallo ñu ngi ko jaajëfal baax a baax bis bu nekk bis bii bu ñëwee da ngay gis mu def benn annonce publier ko ci internet bi istati ko wax nañu waajo bis oustaz Mbaye Ndiaye bi sonn ci ñun moo fu ma ko lëngaree man oustaz borom secret yi jox ma secret yi nga xam ne moom su ma diggantee moom laneen la Moussa Diallo ñu ngi ko seet baax a baax baax a baax euh, moom ku baax la ku baax la di jaay ko baax a baax a baax itam képp koo xam ne rek nag teew nga fi ak foo mën a bàyyi koo ñu ngi lay jaay ful baax a baax suñu xarit suñu mag suñu soppe oustaz Moussa Fakan gisoon nañ fi léegi moom itam teewoon na fi moom itam di borom pas-pas di ku ñu bëgg di suñu mbokk di suñu lépp kon daal foofu la ñuy kaddu yi di wax taataan leen taataan leen te faj te ñaan yàlla faj aajo yi bu déwénee lu ci waay bëgg ki bëgg doom na ñaan doom ki bëgg ak wér na ko ñaan ki bëgg doom tukki na ko ñaan ki bëgg tukki na ñaan lu waay bëgg fas ko ci ñu ñaan yàlla faj aajo yi kon dañuy jox sëñ daam sàll mu daal di ñaan te ñépp nag ñépp nag daal di ci taataan kon sëñ daam ñaan